naqarlu li ni mel waaye tamit joxoñ baaraamu tuuma ka nga xamante ni moom moo di njiitu réew mi naka noonu nag yenn ci ay kàddu daal di jóg sax ci ñoo xamante ni daal nañuy wane rek seenu proposition ci injustice ba nga xamante ne ñu nga koy dund ci noonu nag ñu daal di noté ay arrestation yu bëri bokk na ci kii di Cheikh Bara Ndiaye ni ki démb nag lañ ko fekk ba ca këram dal di koy rek gàddu yóbbu ca kanamu famille am loolu nag rek ah, ñoom ñoo ko daal di jël si rek ah, yóbbu ko mu daal di doon arrestation bu doy waar ca kanamu famiyam doon tamit loo xamante ni sax daal nay tax ba ñi nga xamante ne ah, ñoom ñooy dëkkee foofu daal di génn rek dàq auto police ba waaye teewul daal nañ koy yóbbu moom Cheikh Bara Ndiaye ca rek commissariat bu Rufisque teg ko loxo ci rek loo xamante ni sax lañ koy toppee muy appel à l'insurrection loolu nag lañ ko daal di yóbbu rek naka noonu ci bile manifestation la ñu sax ak. ni réew mi jaxasowe waral nag ba kenn ca ñay layol kii di Ousmane Sonko di maître Ciré Clédor Ly moom nag mu ngay wax ca séquestration ba nga xamante ne daal nañ koy def kiliyaanam bokk na rek ci lu toll ci daanaka téeméer ci ay policiers yoo xamante ni a ñoom ñoo dal di nekk rek ca këram barricade ko dal di rek bañ kenn dugg wala kenn dal di génn waral nag ba moom maître Ciré Clédor Ly mu ngay woo rek communauté internationale ci wax ci li ni mel nga xamante ni sax daanaka moom Ousmane Sonko mën nañu wax ne ci ab prison rek la nekk ndax mënut a génn mënut a dem fenn gannaaw takk der yu am am solo yoo xamante ni daanaka ñu nga rek wër këram di ko surveiller déclaration bu police ñoom nag ci situation bi nga xamante ne ñu ngi koy dund fan yi loolu nag bokk na ci manifestation yi ak na xamante ni sax noté nañ rek ñu daal di ñàkk seenu bakkan ci li ni mel wara nag ba police nationale daal di génn rek def ab déclaration. Libération wax ci ñenn ñoo xamante ni sax daanaka ñu ngay yor ay ngànnaay bokk ci manifestation mu nekk ay ngànnaay yoo xamante ni daanaka ñoom police sax duñu faral di utiliser yile ngànnaay ndax kat dafa doon loo xamante ni ay arme de guerre la ñu daal di koy noté rek bokk na tamit ci daal di jaale ñi nga xamante ni rek daal nañuy ñàkk seen bakkan ci manifestation yi ak seen takk der yi nga xamante ni sax daal naka nañ leen blessé rek ci li ni mel ñoom police nationale nag ñuy wootewaat di rek sàkku sàkkuwaat jàmm waaye tamit di wax rek seenub liggéey maintien de l'ordre rek la waaye du daal di nekk rek di jàmmaarloog askan wi la ñuy def rek bokk na ci daal di maintenir rek li nga xamante ne moom moo di ordre bi fii ci Sénégal yëpp waaye mu mel ni nag ñoom seen jàmmaarloo ak ñii di manifestants yi ba léegi mu ngay wëy rek fépp ci Sénégal la Barthélémy Dias moom mooy maire bu Ndakaaru daal di na génn rek wax ci situation réew mi bokk na rek ci di wax sax naan violence absolue ba nga xamante sax daal nañ koy noter rek bokkul ci la nga xamante ne moom mooy yóbbu nit mu daal di nekk rek ci pouvoir moom nag amu jàpp nekk ca ba bokk na rek ci la nga xamante ni sax moom daal daal di euh, noté rek moom Barthélémy Diaz nekk maire bu Ndakaaru ci jamono ji coono yi nga xamante ne ñu ngi koy dund fii ci Sénégal nga xamante ni sax daanaka kenn amul jàmm li ñuy wax rek ay du am ci bopp borom ndax kat ñëpp daal di yëg rek bile manifestation ak ni mu méttee fii fii ci Sénégal. Pape Sidi Fall animateur ca 2S TV daal di nay rek jébbal ab message kii di njiitu réew mi di Macky bokk na rek ci rek na nga xamante ni sax daanaka bu yeneen dëkk daal di amee ay jàmmarloo wala sax ñenn ñu fa ñàkk seen bakkan moom mu nga sax naan kii di njiitu réew mi kenn bu ko jiitu ca tweet ba ndax kat moom mooy njëkk tweet rek daal di ñaaw li mel waaye nag jamono ji réewam mu ngay toj gisuñu benn yoon mu daal di defub tweet daal di naqarlu li ni waral nag ba moom. Pape Sidi Fall di ko jébbal rek ab message laata rek muy ñaanaat jàmm ci Sénégal tamit jaale ñi nga xamante ne ñàkk nañ seen bakkan ci yile manifestation anaka noonu di jeexacha mu ngay rek wax tamit ab message am rek di ñaanaat jàmm ci Sénégal waaye tamit internet ba nga xamante ne daal nañ koy couper rek mu bokk ci loo xamante ni sax daanaka dina gàllankoor liggéey yu bëri ndax kat boo moyul sax bile internet ñu daal di dagg rek Sénégal dina ci ñàkk rek lu ci rek eh, coupure d' internet boobu nga xamante ni sax daanaka eh, ñoom gouvernement bi ñoom ñoo ko daal di def rek eh, ngir daal a ñaawlu sax naan ña nga xamante ni ñoom ñooy def rek ay message yoo xamante dañuy inciter rek la a ëpp gannaaw la ñëpp di liggéey moo Gates nekk ci diwaanu États-Unis moom ngay wax rek di andi soutien bu baax a baax ci ñi nga xamante a ñoom ñooy manifester rek ak la nga xamante ni sax ñu koy def mu jàpp ne ah, ci seenub droit la nekk moom sax bu jëree mu yëkkati lu toll ci vingt milliards jox ko yile manifestant ngir ñu jàmmarloog Macky Sall rek moom dina ko def rek muy apporter soutien am sénégalais kana nga xamante ne ah, noonu la di ñaawlu régime bi fi nekk muy bu Macky Sall. yenn ci ay artistes tamit ñu ngay apporter seen soutien gannaaw ñii di rappeur yi muy Akhlou Brick Paradise Dip Doundou Guiss Ngaaka Blindé wala sax ñeneen ñoo xamante ni rek dal wàllub soutien mu mel ni naka noonu euh, Wally Balago Seck noonu la ko defee rek depuis France mu ngay rek apporter soutien am ba dal di annuler sax concert am ba waroon am ni ki 3 juin ci loolu nag Omaro mu nga wax sax nan situation beeg nanga nga xamante ne noonu la méttee fii ci Sénégal dafa dal di métti bu baax a baax faramaaren bi ba ay fan yi ngi nii lekkul naanul loolu rek di naqarlu bu baax a baax bakkan yi nga xamante ne jot na rot rek fii ci Sénégal li ko waral nag mooy manifestation yi nga xamante ne koy noté ci diirub ñetti fan Youssou Ndour daal dinay publier ab message loolu nag ñaanaat jàmm ci Sénégal message bi nag mu nga cay wax sax naan nañu def rek dialogue bu sincère daal di appelé waat rek au ba nopp rek ñaan jàmm ci Sénégal jaale bu baax a baax ñi nga xamante ne ñoom ñoo daal di ñàkk seen bakkan ci yile manifestation ñu daal di wax tamit ci abano No Stress moom tamit mu ngay publier rek ab message di ñaan jàmm bu baax a baax mu mel rek ah, jamono ji ak bakkan yi nga xamante ni sax daanaka bañ ko wàññi ah, toll na ci fukk ak juróom-benn ah, ñu daal di ñàkk seen bakkan rek loolu nag daal di nekk loo xamante ni métti na képp kuy sénégalais rek jamono ji nga xamante ni sax daanaka Sénégal daal di nay tàng jër Ndeye Ndack moom daal di nañuy attaqué la nga xamante ne moom moo di këram gannaaw nag position ba nga xamante ne daal na koy wane rek au côté de Ousmane Sonko wala nag ba moom sax mu daal di subir rek ay menaces am sax ñu daal di attaqué këram waaye nag yenn ci ay influenceurs ñu ngay rek ñaawlu li ni mel di apporter seen soutien bokk na ci baaxanoo stress ma nga xamante ni a baax ci ndey ndaag moom nga xamante ne la ñuy wax ragalul wax fa nga xamante fa la daal di féete rek waral ba ñenn daal di koy attaqué ca këram Mame Ndiaye Savon moom mu ngay wax Macky Sall mu daal di génn rek rek les réew mi gannaaw ba nga xamante ne yile manifestation ba mu amee ba léegi kenn déggu ko kenn gisu ko mu daal di def rek ab communiqué waral a ba moom Mame wax rek naan réew mi kenn rek moom moo ko mën a régler muy kii di njiitu réew mi di Macky Sall kon nag war na mën a génn rek daal di régler réew mi ak jamono ji nga xamante ni sax daal di nay jaxasoo mbokk yi safoon doon ñu teewlu lii lañ leen andiloon seen acte du jour di leen ñaanal jàmm di leen wax ngeen abonné suñu chaîne bi te laal cloche notification bañ a dara suñu information jërë ngeen jëf